mbokki internet Mak TV Sénégal gannaaw nag bu ñu leen nuyuwaatee tey gis ngeen ni ñu ngi ak suñu. xarit euh, yi suñu rakk suñu doom yi tey nag euh, ñuy feetu euh, nekk Mardi Gras nekk nag bés boo xamante ni daanaka ñoom lañ ko consacré ba tax na gis nga seen i déguisement yi nga xamante ni moom lañ def tey nag leen wax ni ñu ngi fii exactement ci commune bu Hann waaye nag ci fi nga xamante ni mooy ci Hott Sène bu Hann ñu nekk nag ak ñi nga xamante ni ñoo di xale yi dañ leen di bàyyi xool nan la ñuy def tey yow noo tudd. Nogay. Nogay. nga tudd. moo gay jañ. non lu xew tey. lan lan moo xew tey. Madi Gara. ah. Madi Gara. kan moo la solo yére yu rafet yi. ah. sa bopp. sa yow noo tudd. mama. mama lan moo xew. Madi Gara. Gara feetu ngeen ba pare. lan ngeen def. da ngeen way ngeen kan mooy sa yaay. Oh, Badiane Mounass. ah. Badiane Mounass. Badiane Mounass. Hmm. kon ma est-ce que dañuy jël benn intervenant rek xool si nga xamante ñoo la doon encadré bi mu ne am suñu benn maman. salaamaaleykum euh, maman ñu ngi lay nuyu. ñu ngi fii ci Hott Sène euh, bu Hann tey mu nekk Mardi ñu gis xale yi euh, ak seen accoutrement est-ce que mën nga ñu revenir ci lan mooy Mardi Gras. waaw Mardi Gras moom fi lañ ko fekk waaw pour ñu wax historique bi moom daf ñuy jafe mais Mardi Gras moom dañ lu si ëpp si maternelle moom dañ ko fonk te day tax xale yi épanouiru waa wane seen cosaan ak seen aada ku si nekk indi cosaan ak aadaam léegi mooy wane ni daal ñi ngi dugg si kooru chrétien yi mais toujours noonu daal la demee waaw ngeen euh, regroupé fii xale yi ñu def seen déguisement comme ni nga ko waxee nekk ay train traditionnel xam naa ni historique bi comme ni nga ko waxee day xaw a mais lan moo tax ñu taamu train traditionnel yi. Mm-hmm. waaw parce que ñun fii si école maternelle booy xool ñun dañuy dawal aada ak cosaan parce que xale bi lu Senghor daan wax enracinement bala ngay dem si ouverture léegi xale dañu war a enraciné wu dañoo war a xam seen culture xam seen aada ak seen cosaan. à travers seen aada seen cosaan noonu la ñuy soloo léegi nga xam ne di nga xam kii ban xeet la kii ban xeet la parfois ñu indi aussi ay Zoro ay Spiderman parce que moom la ñuy faral di seetaan si télé yi waaw dañuy xool personnage yu leen neex ñu ne tey lii laay déguisé wu am na ñoo xam dañuy choisir nekk marié waa loolu la. merci beaucoup madame xale yi xam naa ne moom dañu mën a def prestation. waaw gis nga de prestation yi moom xaw na fekk ngeen mu paase. waaw doon nañ def prestation si école bale comme ñaari école la. Ah. waaw tey ren moom école ba le ñoo aye woon. voilà. ok merci beaucoup soxna si ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. tey yaa ngi fii euh, ci haute scène bi ñu gis nga ànd ak sa doom ci euh, bésu Mardi Gras. tey naka nga ko dundee en tant que parent. ah contente rek lañu am ndax moom yàgg na fii depuis mu amee cinq ans presque la fi nekk ba léegi nii mu ngi ci neuf ans am. waaw wax dëgg yàlla mën nañ jàngale. am nañ éducation seen fii daal baax na moom. léegi euh, moom euh, chaque année day ñëw euh, prestation bi nga xamante ne moom la ñu amal yow à chaque fois yaa koy accompagner pourquoi nga choisir tenue bi nga ko solal tey. waaw parce que man Haalpulaar laa moom chaque année day koy defal beneen kii waaw pël laa moo tax may choisir chaque jour te dafa rafet. dafa rafet waaw. <laughs> moom nu mu tudd. Mbène Seye. Mbène. ah. lan moo xew. Madi Gara. Gara. <laughs> feetu nga ba pare. mën nga way. mënoo benn benn way sax mbenn sa yére bi nga sol dafa rafet. Ah. sa yére bi nga sol dafa rafet. merci. Hmm, ko solal. sama moom moo la andi. Ah. moom moo la yóbbuwaat. waaw. ok merci Mbène. Merci. Merci, maman. Merci. Merci. thank you